fa mu jaar ku fa jaar taq ban waaye ku fa génnee day di nga mel ne ku jóge safara rek daanu si aljana moom kay xanaa mooy deegu fomm rek ndax rëcc ca moom yombul di jàngoro coronavirus ji waaye waa ji day moom rëccee na ca ñu gën koo xam ci ma Ibrahima Sène ma séen min xëy jël ay kaakaam lem ay dossier ba mu jekk ñu ne ko sabax ne ko wér nga pëlëng moom day moo xëy amee xët wu njëkku libération ubbil yéenekaay bi ma Sène nee na man day dama amee woon coronavirus maa ngi bokkoon nag ci cas communautaire yi waaye nag xaw ma fu ma ko jëlee ma ànd ak moom nag di dox di tendeefal ci noonee ci lañ ma jàppee ne ma nit tee yóbbu ma fële ca sant de santé bu daaru marnaan Ibrahima seen yemu ca ca noonee ca la jàllee ne ba ma génneel bokk na ca la ma njëkk a def mooy démissionné ci sama postu vigile ba ma nekkoon ndax ginnaaw biñ ma testee ne ma yow mi kat dangaa amee jàngoro jii di coronavirus ña ma bokkaloon liggéey ba ñoom ñëpp dañu maa dumbooyu yu beddi ma wan ma ginnaaw li ñëpp wan ginnaaw mooy doxantoog tambaambalu jamonoy couvre-feu boobee ubbil xër wu njëkku l'observateur police ak gendarmerie ñoo fa ne ña ngay wax liggéey bu rëy bi ñuy amal ci jamonoy coronavirus boobee ba tax na jot nañoo jàpp sax lu toll ci 10 000 personnes ak junni ci ay daamar ñooñey day ñoo xëtt liggéey yu président Macky Sall li xëy ne fàng ne jant te kenn dootu ko laam-laamee mooy délai bi noo ngay war a deltu fële ca l'école ya La Turbine l'observateur le quotidien ñoom ñëpp ñoo xëy amee njàng mu kaw mi di Mamadou Talla Mamadou taalaa nee na njàng meeg njàngale mi dina ubbi waat ay buntam ñaari fan ci weeru juin bii ñu dëgmal rawatina nag ñiy def examen di bag ak BFEM ak certificat waaye ñi leen di gunge nag ci bangi jàngukaay yooye mooy sel ak saabu yeeg takku masque yi lutte contre coronavirus moom xanaa waa Touba bokkuñu ci ndax jëw li yor yëf yi jëlaat na dogal ubbi waat bunti marché Ocass ba ca tuubaa loolu day xanaa moom mooy taw coronavirus rek fële ca dëkk bu sell bee di tuubaa man kay li ma jaaxal rek mooy lii xëy di joññanteeg ak a jiyoo fële ca marché occas bee yi doy na waar.